ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bi tudd Aliou Badara Balde moom nag ma ngay football ci niis doomu Sénégal la waaye Sénégal a ngi ci yoonu ñàkk ko ndax bëgg-bëgg bi mu am moo di dem football ca équipe nationale bu Guinée Conakry gone gi ma nga ca Nice di football ci réewu Sénégal nag la juddoo ñu tàggatee ko ci club bu ñu naan jàmbaar gone gi miin na lool Sénégal waaye Sénégal a ngi ci yoonu ñàkk ko ndax bëgg bi mu am moo di dem football yi ak équipe nationale bu Guinée Conakry Algérie muy Aliou Badara Baldé nekk gone gu mën la muy def jamono ji ma nga ca Nice ca réewu France di doxal ñu jugee ci Aliou Badara balde ak i bëgg-bëggam jël doomu Mali bi tudd Yves Bissouma moom nag dafa mereel lool fédération bu Mali rawatina ki tàggat seenub équipe nationale tudd Eric Sell li ko waral moo di matchu amical yi ñu war a amal ñoom waa Mali moom Yves Bissouma bokkul ca liste ba loolu nag naqari na ko lool ba tax na photo yi nga xam ne moom la amoon ci Instagram moom sol ca mayo Mali lépp la retiré maanaam photo yooyu yépp la dindi li ko waral moo di dafa mer lool moom Yves Bissouma ma ngay football ca Tottenham nekk millier de terrain bu mën la muy def li ko merloo nag moo di ñàkk gi ñu ko ñàkk ci match yi nga xam ne war nañu koo amal ci weeru mars wi ñu juge ci Yves Bissouma ak meram bu métti dem ca waa équipe nationale bu Nigéria ñoom nag bu yàggu dara la ñu téqalikoo ak ki leen doon tàggat tudd PSRO war nañoo amal ay matchu amical ñoom tamit ki leen di tàggat nag maanaam ki ñu fa tegandeegum seen doom la mi ngi tudd George Finidi ab attaquant la fi woon ay jamono daan na football ci Ajax Amsterdam waaye réewam di Nigeria wit daan na fa football moom la ñu dénkandeegum équipe bi moo leen di tàggat waaye match yi ñu war a amal nag bëri na lool ay absent ndax Victor Osimhen du mën a bokk ca match boobee tayoo ayewoni ak yeneen gone yoo xam ne du ñu mën a bokk ca match yooyu nga xam ne moom George Finidi moom la ñu dénkandeegum équipe bi ngir mu tàggat leen. ñu jógee ci équipe national bu Nigeria waaye seeni doom duñ leen bàyyee gum ndax ki ñuy jël ci seenum réew moomee la dëkk muy bi Bioyo. gone gi nag contrat bi ko lëkkale ak Fulham saison bii ñu nekk bu jeexee ba dara soppeekuwul ci diggante bi day jeex tàkk bu ñu sukkandikoo ci Daily Mail waa Olympique bu Marseille ñoo ngi koy bàyyi xel bëgg moo di waxtaan ak moom nax ko bu kontraam jeexee ci falaam mu ñëw gratuite ci seenu club doxal muy Adra Bioyo nekk doomu Nigeria ñu jugee ci Adra Bioyo ak waa Olympique bu Marseille ak seeni bëgg-bëgg waaye goney Marseille yi duñ leen bàyyee gum ndax kat Igor Tudor mi leen doon tàggat ay jamono jamono ji mooy tàggat Lazio de Rome li mu bëgg moo di dolli dooley Lazio de Rome boobee waaye fa mu bëgg dem moo di ca Olympique bu Marseille doomu RD bëgg naxtaan fexe ba jëlee ko ca olympique bu marseille yóbbu ko ca Lazio de Rome mu doxal waaye gone gii tamit ñu naan Valentin Rosé moom it da koo bëgg moom Igor Tudor li mu bëgg moo di ñaar ñii mu jëlee leen ca olympique bu marseille yóbbu leen ca Lazio de Rome ñu doxal ci fàttali moom mi moo wuutu Mauricio Sarri foofee ñu jugee ci waa Lazio de Rome ak Igor Tudor ki bëgg-bëggam jël doomu Belgique bii di Thibaut Courtois moom nag démb la daanuwaat maanaam dafa amaat beneen blessure jamono ji nag opéré nañu ko ba noppi opération bi jaar na ci yoon maanaam réussir na moom nag lu mu gàtt-gàtt dina toog juróom benni ayu bés jàpp juróom ñaar maanaam six jàpp sept semaines door a mën a taxawaat ci ay kang di góolu moom Thibaut Courtois nañu ko ba noppi clubam di Real de Madrid ñoo ko siiwal kon nañu ko ñaanal mu wér balaa yàgg ñu jugee ci tibo Courtois ak waa Real de Madrid ak seenub xabaar bu naqari dem ca waa Barcelone bu ñu sukkandikoo ci Mundo Deportivo Barcelone googee bëgg-bëgg bi ñu am moo di doomu Eslovanie bi tudd Benjamin Sesko nekk ca RB Leipzig ñu jëlee ko ca Bundesliga ba yóbbu ko ca Liga ba mu doxal gone gi vingt ans képp la am waaye li muy def mën na ko lool waaye contrat bi ko lëkkale ak RB Leipzig jeexagut clause bi ko bàyyi ca club boobee mi ngi toll ci cinquante millions d'euros su fekkee Barça bëgg na ko su ca defee loolee mën na koo xaatimal contrat yóbbu ko ca Liga ba mu doxal xibaar boobu Mundo Deportivo moo ko xamle. ñu jugee ci Benjamin Sesko ak waa Barcelone ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Brésil bi tudd Daniel Alves moom nag waxoon nañu leen ne ay mbiram dañu koy attewaat ginnaaw bi ñu ko attee tëj ko ñeenti at ak genn wàll loolee nag amal nañu ko ba noppi moom am na libertéem waaye nag ba léegi amagul jàmm ji mu soxla ndax dañ ko laaj ab xaalis boo xam ne moom la war a joxe mu toll ci un million d'euros loolee bu ko joxee rek dina moom boppam fu ko neex mu dem fa waaye jamono ji nag moomagul boppam ma nga ci réewu Espagne loolee bu ko fayee dina dem fu ko neex li ko yóbbu sax di ay passeport am dañu ko nangu amoon na ñaari passeport muy bu Espagne ak bu Brésil waaye jamono ji yorotu ca benn dañu ko nangu su fayee xaalis boobee ba noppi nag dina libre comme ngelaw fu ko neex mu dem fa moom danielle Alves ñu jugee ci danielle Alves ak ba bàyyib négo ndiki boobee mu am dem ca waa Arsenal ñoom nag juboo nañu ak doomu Japon bi tudd Tomiyasu moom yokku na contrat ba atum 2026 loolee officiel na moom nag latéral bu mën la muy def la